yigoni wonde taggugol makka ngay fettasu ɗay klaxone to ɗum to aljanna malaika yangi puukore lo xew ni abdoul asis ndaw mo takk mama mama kawa ñi woy ceetel ñuy tagg waaji seyduna mouhammad ñi fettasu mu naan kon to ɗum to aljanna ko ci def ni yalla nekk sa laissé passé aljanna hada safi Hadj Abdoul Aziz Sy borom bi ba góor gi nekkoon aynu maa di tuwaawoon jag saaw wuutu baayam wuutu ay magam 40 ans 6 mois fukki fan ak juróom zéro fukk dossier sans tâche miniature bàyyi suriñ moo dossier taajul uda bàyyi waa di bil ulama bi ku sopp da baax newu ana sopp yi Alaaji Abdoul Aziz yi moom rek moo mos a wax ak yàlla lakkaate xeetu njool màkk bu kenn safara bu dee benn la jëlal sama jëmm man El Hadj Abdoul Aziz nga of ko safara safara fees dal xeetu njool Makka dem aljanna ana ñu sopp El Hadj Abdoul Aziz mooy jooja Seydina Muhammad la ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير هذا rajo yëngal na suuf kii sama cofeel waaw ma ne ana soppee da baax yi xanaa fii ku soppoo la Abdul Aziz newu fi hada shawqi bi xayril baraaya dégguma dara ana soppee da baax yi ku ma soppoo la Abdul Aziz nu jóg taxaw ñu soroxol la mag la Abdul Aziz mooy jóobe Alaaji Abdul Aziz ne rajo yëngal na suuf kii sama cofeel lu ko yëngal mooy waaju sayyiduna Muhammad ma zaharin lutfi akrami mooy feeñ waayu ñeewantu sa turandoo de akramil kuramaa yi moo gën a tedd ci yeneen ci moom sayyiduna Muhammad Alaaji Abdul Aziz ne bëgg naa yoon ci Yàlla Muhammad lii la mel ci man moo tax maa ngi koy woowee Taaha bu ko yàlla naan Taaha yàlla na koy neexal bu ne ko Yaasin mooy le plus beau parmi les plus beaux que sa grâce et son salut soient sur le plus noble des prophètes Muhammad ibn Abdillahi ainsi que sur sa famille et ses compagnons may ka Allah subhanahu wa taala his grace and his salute his noble prophète ku sopp njël Makka ñu jël taxaw saraxolle ku ci saraxolle yàlla nekk fale fa passé aljanna ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم alaaji Abdoulaye Adama ne bakkaarkat yëpp kenn la ñu yaakaar muy borom bas bi sayyidina Muhammad yëgo ne ëllëg yowmal xiyaamati bu yàlla pakatee asamaan si arrangé suuf si écarté montagne yi xam nga ban bis la kallaa izaa dukkatil ardu dakkan dakkaa ay ma dukkoo kan wa jaa rabbuka wal malaku safan safa wuti a yawma idin bi jahannama yawma idin yatadakkaru l insaanu allaa lahu dikraa waaye bu boobaa kenn rek mooy jëkki ànd ak sagoom mooy borom bas bi Seydina Muhammad ana soppe rasulillah yi njël nag yàlla day taw taw neex 40 ans la ko yàlla di taw muy dal ci barrière or ba daaneel barrière or ba barrière ba daanu muy dal ci bammel Moustapha di xar bammel ba bammel ba xar ñaar Moustapha ñu bëri jug jëkk waxtaaro ngay xool njël nag Yaxya bin leen xati sama Alaaji Malick ne Alaaji Malick ne balaa nga xam ne waajee rafet leen Yaxya wurus ndox wurus mooy surk kulle jannah ya alaaji Maalik yal nañu ko yàlla fayal ba keroog dara mën a dem la Kumba Caam faaga bu farma Jóob buguma penda pata penda xar yàlla bopp coor xanaa tant bi ku sopp alaaji Maalik newu fi bàyyi Seydi Aboubacar Si borom bone kaare bi ak sakkar yàlla bi ak li douleur yi ak istiqaama ak tekkat dégg la mara bu tous les risques ana taalibi Seydi Aboubacar Si xanaa fii ku sopp Sëñ Babacar Si newu fi ne ku jaayanteeg man man Seydi Aboubacar Si bu la rafet ci bàmmeel nga xam ne maa mën ci sëriñ yi maa lay teeru tàgge sama loxo bàyyi alaaji Hadji Malick mu teg la ci loxo Cheikh Seydi Ahmed Tidiane mu teg la ci loxo yonent Yàlla Muhammad te yàlla ne dama tas yaakaar njool Makka yawma laa yaxzii Allaahu nabiyyaahu wallaziina aamanuu ma'ahu nuuruhum yas'aa bayna aydiihim wa bi aymaanihim yaquuluuna rabbanaa atim lanaa nuuranaa waghfir lanaa innaka alaa kulli shay'in qadiir anañ sopp Seydina Muhammad moom rek moom rek njool Makka Seydi Abubakar Sylla mooy laaj fu mu dëkk maa ngi dëkk Ndar innanii qad kuntu min ahli Ndari wa maskanii bi haadaa daari Ndari isnaani wa arba'uuna qul zaaka al-adad li تكن تعرفها فاسمي يدلك الصراط حق الغلبي خنا تانت بي كو سوب سيغ بابكر سي نيو في موي دوخنتو ندد نداري لو رمب سيلي زيي نيكاي جاي دنيو ديغ توباب سيغ بابكر سي نه ما لن راو ني ما ديغي عرب نون لا ديغي توباب ولي سيغ بابكر سو خال من وحل سما لاقيت من واحدا يقول ما ابي يكرم شهيدا اج لدى وداره معروف نون وي وي من بينهم مؤلف الفو الفو مؤلف بلا اجل سلسله تحقيق قول وعمل وذاك الدأب والوصفة مع التسكة وشدد الحديد النفذ يسكى أنا يشد سيدي أبو بكر سي راس أحمد إن حبه نبي ala jàpp laa ne bëgg yi ma bëgg njëriñ ma kër. xaaral ma lax mi. jaxasoo naag sama yàpp yaram. wa iwaani. ala jàpp laa ne ne Xaadi Mansour dem na ba ca yàq ya bëgg gi ma bëgg Seydina Muhammad. wa tamanu. ala jàpp laa ne ne. waaw ma ne ana soppay dam baax yi ala jàpp laa ne ne. deret ji surgal sama yaram deret ji dafa bëgg Seydina Muhammad sana mursalina mooy sangu trois cent treize yi adil baraya si rahmat mooy jubal mindeef yi liridallahi jëmee leen ci ngir man dégg yàlla moo jur Fatima moom Seydina Muhammad waaw man ana ñu sopp njool makka maa ngi joobe waajo rasulillahi wa nafli alhaji abdul aziz ne mooy sama naafi wa sharabi wulay abdul aziz su turoon doone ndox mi may naan mooy bëgg sayyiduna muhammad wa mumyati waaw man xanaa tant bi ku sopp alhaji abdul aziz newu fi maa ngi ñaan ku bëgg daw safa ak marwa nu jóg taxaw ñu mëgg la alhaji abdul aziz ku si sori xool la yàlla nekk sa la sa passé ak wa mumyati mooy sama mëbët wa ila daanul ne bu ñu tegee ndab li maa ngi sant ci ndab li bëgg Seydina ma. waa bayti. Alaaji Abdul Alim ne mooy néeg bu may wër Kaaba ga. waaye sama ndoxu zam zam. wa وأجب هنيوب بك رسول الله لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلون المسجد الحرام ان شاء الله امنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا وجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهر على الدين كله وكفى بالله شهيدا ومرأي لا يغفر لا يغفر أحللنا لك لك أزواجك التي أسرهن وما ملكت يمينك وبيتك ما أفاء الله عليك وزمزمه صلاة عمك وحضره صلاة عماتك ومذهبه بنات خالك ومروته بنات خالتك التي هاجر معها وامرأة مؤمنة lii waxal ma Seydi Aboubacar Sy lan la wax Seydina Mouhamed waxal ma wax benn baytu El Hadj Malick ca daaneel kaddu gi. Mouhamadan xayral bariyati ataa. Seydi Aboubacar Sy bari El Hadj Malick mooy jooge Seydina Mouhamed. Mouhamadan xayral bariyati ataa. góor gi dëkk Ndar ana taalibe Seydi Aboubacar Sy mooy jooge Seydina Mouhamed laa wax. Mouhamadan ngeen ji mbindeef ataa dikk na si Ahmed gaawal gaaw dama guddee maanaam xaymaari yati ataa waaw ma ne xanaa tant bi xanaa tant bi ku sopp Seydina Mouhamed ne woo fi kuy kuy bëgg Rasulillah na def nii ñu màggal Seydina Mouhamed محمد خير البرية موي گندي من دفعتا ديك نسيد احمد دينك قد kulla fata sëñ Babacar Si ne moo woote ci diine yàlla ji waaye ñun ñëpp wuyu si nañu waa ji Sayyiduna رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحمة السماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجيل كالزرع اخرج شطأه فآذره فاستعلى واستوى على سوقه يعجب الضرار وعجب الكفار وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة واجرا عظيما damay génn Makka dem sama nijaay ya Taïf Alaaji Malick ne ñu ko recevoir Taïf ñett lañu ñetti kilifa ñoo ko recevoir maire bala ak gouverneur ba ak préfet ba maam Alaaji Malick ne xam naa seen tur xanaa tant bi ko soppi Alaaji Malick ne wu fi Alaaji Malick ne abda yaa liila masoudan haliban ata ka mustajirin bi amni fi inadihi Alaaji Malick ne bu la waxee ñaata weer la sax Taïf ne un mois aqama indahum shahran wa rajaahum wa lam yujibuhu bal maalu ila sujumi Alaaji Malick ne ñu boole koog xale yaak xaj yaak dof ya ñuy sànni Sayyidina Muhammad ndëggu ya di nàcc moom rasulillahi alaaji maali ne la ko dal taaj bi ma ko nettali laaqa min suuraya maa laa afuuhu bihi wa saaqa addima wasaala demmu leen xadami xanaa tant bi ku sopp borom parasol bi Cheikh El Hadji Malick sëriñ bi nga xam ne laa yujaara wala yubaaha wala yubaaha man sumaahu samaa lahu yadu tulaa والغاية القصوى والملجأ والمأوى شيخ المشارف في الإسلام والدين المشار بالبنان الممكن بالبيان الذي قام قام به وإذ قعد قعد مع الله جميع أموره إلى الله وفي الله ولله ثم سقل على جمال النجوم تقوا يمد البرم فرسول دي سريو مام سليمان دو أنا واتكلا نهي سقو مام سليمان دو سريو مبالا جمال موجود سيدنا محمد قدموا جميع الأنبياء قدموا جميع الأنبياء guiri nacce mu dem makkatal mukarrama guirne gu mu heeni soro sidna ali la jibril alayhi salaam ba teesamaane juróom ñaar ànd ak cortège ba ñëw ni ko yàlla ne tey da lay recevoir moom yàlla wa rusli fii baakal abdi sëñ Babacar Si ne yéegoon it bi ñu jógee Makkatal Mukarrama mu di yeesal njàppam yeesal njàppam Jibril alayhi salaam ana benn satala satala wuusule dugg aljanna teen bu ñu naan salsabil mu tànq ca ñëw ni nabi yàlla ne deesalal sa njàpp mu yeesal njàppam muy jëkk nu def sa njàpp la eh Moustapha ni ko Jibril la koy dee mu ne ko dama koy indiwaat aljanna jox ko jox ko jigéen ñi xuuru ay nii nekk aljanna ñu def ko make up make up lañ koy def buñ ko def defee may këpp ñu taaru sa taar gi yow rasulillah yi ana soppay sayyidina Muhammad yi eh, yàlla dëkkal 123 999 prophètes yi Moustapha jiite leen ñaari rakk sëñ Babacar Si ne xaddamahu jiital na ko jamiu lambiya yi moolam yonent yi Sidi Ahmed warusuli ak 313 yi lan la ñuy sàkku fii ba baaka sa ngir mande waaye ñi ragal yàlla ñëpp dem nañu Moustapha jiite leen ñaari rakk. waaw ma ne ana soppe Seydina Mouhamed yi maa ngi bàyyi maa ngi waaj a daaneel kaddu gi loo wax buri jëma buri jëmi الحسن ود ما اوحى الى عبدي ما اوحى ما قال والفؤاد ما راى لا تكسر احمد درج ما درج من تباخ درج ما درج من تباخ له ويعرج الى الافاق سيد احمد ذكر سيد ابو بكر سنه yëgoo ne keroog Moustapha taxañ na sama ni benneel taxañ na sama ni ñaareel taxañ na sama ni ñetteel taxañ na sama ni ñett taxañ na maa متخيمت باقي تدير أسمان إلى هو يخرج إلى الأرض سيدي أبو بكر سيدي مصطفى يجنب تجوه أسمان يا أراه رب العرش ما يرى araahu eh, woon na ko rabbul arshi yàlla mi borom arash maa yardaahu li muy kontaan loo moom sayyiduna Muhammad kada min al anwaari maa yarshaahu ne kadaalika noonu min al anwaari ci leer yi maa yarshaahu bon maa ngi ñaan maa ngi ñaan ci lii yàlla yàlla barkeel ko